salam alaikum donc man maay Abdoulaye Diaw directeur technique société Human International donc Human International société la bu xamné existé depuis juroom ñetti at et puis voilà nous sommes spécialistes dans la pose de gazon synthétique bon si nous palmarès euh, ñoo defal defar nañ terrain yu Oroya Kaloum euh, TP Mazembe Salitas bu Burkina ak beneen terrain Burkina Faso au niveau du Sénégal ñu ngi Sénégal Japon euh, mairie Baobab euh, cercle de l'Union etc. donc aujourd'hui nous sommes toll nii ñu stade Malika pour appeler leen ci pose gazon synthétique au moins c'est une première commune Malika bon mais ce gazon Demba Ka bu EDK Oil moo ko offrir donc actuellement équipe bi mu ngi nekk en place donc poser nañ géotextile bi ba pare dafa nañ plateforme bi poser nañ géotextile bi nëgër ni euh, teg nañu gazon bi ñi ngi en train de ajuster couper coller suñu paré nañu def souci pour gazon granule yu jóg taxaw ensuite ñu def euh, euh, granule de caoutchouc après terrain bi paré donc euh, foofu nañ toll actuellement donc l'équipe baa ngi ni di liggéey normalement pour pose gazon bi dañu fixé woon délai fukki fan ak juróom mais yaakaar nañu fukki fan incha allah dinañu pere terrain bi livré ko comme ça mu mën a euh, abriter des matchs yu baax ñu ñi jouer seen match yu baax et puis à partir de cet heures cent fii nii ñu naan ay suuf su bëri fii nii ñi ñuy damm wala et cetera donc euh, voilà donc loolu mooy sunu liggéey tey et voilà équipe baa ngi fii équipe bi baax na trop affûté na donc am na ñu xam ne spécialiste pour col la am na ñu xam ne spécialiste pour pour coupé am na xam ne ñoom ñuy gérer ligne ligne blanche yi am na ñu xam ne ñooy mélange yi ñooy gérer mélange yi am na ñu xam ne ñooy gérer entrepôt yi am na ñu xam ne nag moom ñooy manœuvre yi ñooy joxe doole pour defar ci bi donc am nañu au moins fukki nit yu xam ne ñun ñu jàppale si liggéey bi Eh, mu ngi doxee macha allah ni ñu ko bëggee waaw. sëñ mën euh, matériel yi ak stade euh, bi bi ak euh, dina mën a couvrir match international parce que ah foofu moom dinaa si kontaan parce que terrain bi gazon bi ñu am c'est approuvé par la FIFA moo tax ñu naan gazon ñaari étoile bon et ne monofilament yi. 50 mm là. 50 mm donc bo xolé terrain bi gazon au total de 105 mètres sur 75 mais RDGB de que 100 mètres sur 70 donc ça veut dire que euh, respecter les normes internationales respecter la loi 1 du des lois du jeu la loi 1 pour les lois du jeu donc terrain normalement bu paré abrité euh, euh, match internationaux bu ñu defaraatee tribune yi bu ñu defaraatee couloir yi dépendance yi lu lu si war daal mais aire de jeu bi moom dina pare pour vraiment pour am waaw distance bi comme ni ma ko waxee woon de jeu bi au total gazon bi au total dafa nekk cent cinq mètres de longueur sur soixante quinze mètres de largeur mais aire de jeu bi dafa nekk cent mètres sur longueur et soixante dix mètres de largeur donc on a 7000 mètres carrés on xam ne mën nañu évoluer donc c'est seetlu bas les les les lignes de les lignes de but sont faites les lignes de touche sont faites donc l'unité ñu dese dañu war euh, euh, la euh, la la zone de 5 mètres 50 la zone de 16 mètres 50 le le demi cercle le rond central les, les, les 1 mètre pour, pour, les, pour délimiter les corners, etc. Et, et puis voilà, c'est prêt. après, on ngi def la dernière phase On def mooy mooy ñu def si le sable de silice bi xam ne le tax gazon bi taxaw ensuite ñu def si caoutchouc bi bi xam ne tax bal bi di rebondir On ñi aussi di évoluer dans un parfait état. donc suñu ci terrain bi rek gis nga ni nee nga terrain bi donc dans les normes donc euh, dimension normale donc si biir terrain bi aussi donc mën nañu ñëwaat un euh, xam ne yaa ngi ko bëgg yaa am ak euh, bon bon en fait voilà foofu tamit ñu ngi remercier maire Malika bi parce que bi ñëwee aussi dañu mettre personnel à notre disposition donc personnel bi ñu nekk ànd ñu ànd ak ñoom si liggéey bi yëpp donc ñoom étapes yi ñu jàll yëpp processus bi ñu def yëpp ñoom jàngal nañ xamal nañ ko wax nañ leen matière matériaux yi war nañ leen matières yi wax nañ nañ koy defee donc bu ñu paree dañ leen defar formation boo xam ne maintenant après ñoom ñooy ñëw entretenir gazon bi régulièrement parce que boo seetee bu baax granule de caoutchouc yi bu bu ñu taakalante bu defee ay mouvement affinol day bouger donc il faut que mu am koo xam ne da koy ñëw di ko brosser régulièrement